leen nuyoo ba noppi li gën a fees ci bopp xibaar yi tey ci alxamis ji muy na commission d'enquête buy saytu manifeste yi fi amoon ak ñi ci ñàkk seen bakkan yàqu-yàqu ya maître Sidiki Kama jëwriñ ji dénk wàllu force euh, armée bi moo daal di yëkkati yooyu kàddu tey jii bi muy dajeeg taskatu xibaar ndax nee na manifesté ba mu amee kàddu yu bëri yu dul dëgg dañu ko caa dugal ba mbir mi féete boor dina ci ñëw nu mu gën a yaatoo borom ñaari tur yi duñu leen yaatal ci réew mi ñu fi daata ndale euh, bu ñu sukkee ci kuréel gi nga xam ni moo taxaw temm ngir nag ñu ñaawal euh, boobule jafe-jafe ndax nee nañu ah, du ñu leen bàyyi boroom ñaari tur yi eh, ci biir Sénégal lépp loo xam ne rek moom la collectif bi xaar ah, nguur gi na leen xatal ba ñu xat lool te dégg nañu sax ñu ngi koy waxtaane fu ne ngir bëgg koo jëmal fii ci Sénégal ñaar fukki fan ak ñett ci weer bi ñu nekk ah, la ñu bëgg ci amal ab doxum ñaxtu muy 23 mai ba la ñu dëkkmal ngir ñëpp dégg leen Mamou Diaby Gassama lañ ci yàndal fukki weer ak juróom yoo xam ni gisuñu seeni payoor ñu bari ca ñoom ñu dàq leen ca biti ñu toll ci juróom ak juróomi liggéeykat liggéeykat yu nekkoon ci usine bu yëngu ci wàllu jën di Ikajal nekkee ca diwaanu Mbaling ca mbuur foofa liggéeykat yi fipp nañu ne mbuumu jaam dafay jeex te seen njaatige yi loolu lañ dëkkee ak ñoom mënatuñu ko noppiwaale ceex na daa xëyoon na fekk leen fa ginnaaw ba la ci des ñaareelu pàcc bi dinañ ko bàyyi ak ajaratu aw Diop Ndiaye Diagne ci kanam tuuti ñu faram fàcce xibaar yi dal leen ak jàmm commission d'enquête euh, ki nga xam ni mooy maître Sidiki Kaba fësal na ko ni dinañ ko taxawal ngir mu saytu manifeste yamoon ci weeru mars bi te ndoxte la ay doomi aar ba ñàkk seen bakkan jumtukaay yu bari yàqu ca tey xibaar yu bari yuñ ca doon jàllale te wérul ñu teewlu suñu naataangoo xoxaandong moo ñu teewaloon ci ndaje mi mu xëy ak taskati xibaar yi tey ji ci alxamis ji kii di ministre des forces armées maître Sidiki Kaba yëkkati na ay kàddoom ngir rek fësal ne dinañ teg ab kuréel bu tëddee njaaxaanaay ngir rek ñu mën a saytu responsabilité yi ci jàmmaarloo yi amoon ci réew mi ci li mbirum Ousmane Sonko ak aji Sarr. gouvernement du Sénégal dina constituer commission indépendante commission d'enquête. nañ fexe ci commission d'enquête yi ñu bare ñu dugg ci mu nekk opposition mu nekk société civile. ñu jéem a saytu ci li nga xam ne mooy euh, jafe-jafe yi nga xam ne loolu lañ xam au début du mois de mars deux mille vingt et gannaaw bu mu loolu liggéeyu woy takk der yi maître Sidiki Kaba yëkkati na ay kàddoom weddi tuuma yi ñu teg seen kaw ndodd ne dafa am ñenn ñu ñu toroxal ci ñu ñu tegoon loxo. wax nañu tamit que ñu fi def force de défense et de sécurité yi. war na tax Sénégal war nañ ko yóbbu ci cour pénale internationale loolu wax rek la loolu mënul am ndax crime yi nga xam ne cour international internationale boobu boobule mooy ay crimes yu gën a grave ci crime yi ci àdduna te loolu defe naa ne loolu amu fii ci Sénégal dañuy tuumal force de l'ordre sénégalais yi li ma ci bëgg a wax mooy di ñoom ñi wone nañu que am nañu professionnalisme su du loolu ah defe naa ne lu ñu am ci bilan mën na noo gën a bëri ndaje gile nag doonoon na ab occasion ci ministre des forces armées maître Sidiki Kaba ngir rek mu dalal xelu askan wi rax ci dolli nag di xamle ne bépp nit bu amal ab doxalin bu dëppoowut ak yoon ci manifestation yi fi amoon ci li ñeel coowu Ousmane Sonko ak aji Sarr dinañ la tekk ay daan Ah, borom ñaari tur yi duñu leen mës a bàyyi ci réew mi ñi jàmbaan jolle muy kuréelu ah, sàmm jikko yi ñoo ci yooyu kàddu ni dañu koy xeex ba kenn du leen yaatalal ci bilim réew dégg na ñu ngi koy lam-lamee fu ne ñu ngi ciy xaar nguur gi nag bëgg nañu ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mais bay ñu mën ah, ñu wàcc amal doxu ñaxtu ci mbedd boobaa ñu déglu leen maa bu jaabe gasama lañ ci àndal nguuruk Sénégal moo ngi ci yoon daganal ak ak yelleefu borom ñaari tuur yi li nu mel dafa bokk ci ay mbébétam bu ñu sukkandikoo ci bànqaas bi ñu duppee ànd sàmm jikko yi. pour la première fois ba Sénégal di Sénégal ba tey ñu bind góor jigéen ci suñu texte de loi réew mi mi ngi ciy dox ay jéego waaye li ci gën a metti mooy askan wi xamuñu ko te it informé wuñu leen yëguñu yëguñu borom ñaari tuur yi ci réew mi. Sénégal dafa am ñaari phase yoo xam ni ci la ko bëgg a liggéey benn bi mooy la phase d' institutionnalisation beneen phase bi ci des nag mooy la phase de sociabilisation ngir bi le dogal bañ a sotti ak it voté benn loi ba nga xamante ne décriminalisé lii di homosexualité ànd sàmm jikko yi dafa daal di lancé benn pétition ba nga xamante ne sax këru diine yi kilifa yi dox ci wàllub aadax cosaan ak yéen kuréel jot nañ ko xaatim waaye kanta góor ak góor gu naan dañuy takkante ay jigéen ak jigéen ji takkante di def ay gay pride loolu ñun duñ ko nangu ci réew mi tey duñ ko nangu ëllëg xam ne yoon may nañu ko suñu diine may nañu ko ñu lancé pétition bi bu sénégalais yi signé massivement te kilifa diinay signé nañ ba pare kuréel yi ma la limal aussi signé nañ ba pare. bile kuréel dafa fas yéene amal ab bés ba nga xamante ne danañ ko amal fépp fii ci Sénégal ngir wone rek ni ñoom duñ mës a nangu ñuy daganal ak ak yelleefu borom ñaari tuur yi fii ci Sénégal li nu mel danañ ko amal ñu ki ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mai bi di ñëw. le 23 mai 2021 à partir de 10 heures ñëpp war nañ leen place de la nation mbooleem département yëpp aussi. dañ fay organiser même heure bi même jour bi manifestation bi. ànd sàmm jikko yi mbébétam moo di ne fii ci mim réew ñu woyal di sàmm yu baax yiñ fi am muy ci wàllub àndax cosaan muy ci lu wal wàllub diine naka lañu sax ñoom duñu musa naam sa fàññe la nga xamante ne suñu maam yi jot nañ ko fi bàyyi. ci xibaar tiis ñëw bokk ci xibaar yi juge bi di Samba sàll moom ñàkk na ba kenam faatu na tey ji ci alxemes ji juróom-ñetti fan ci weeru avril ci hôpital principal bi nekkee fii ci Ndakaaru ñuy fàttal doyen des juges boobu moom moo yoroon dossier Ousmane Sonko Adji Sarr gannaaw ba nga xam ne que ko njëkkoon a dénk Mamadou Seck da caa génn loxoom kon doyen des juges Samba Sall moo faatu tey ji moo yoroon dossier Adji Sarr Ousmane Sonko fukki weer. ak juróom jotuñu seen payoor ñu bari ca ñoom dàq nañu leen ba ñu tàggoog jaatige ya ñu taxaw nag tey jii ni dañuy fépp senegaal weesu na fu ñuy takkee ak bu mu jaam ñëpp moom seen bopp dootuñu ko nangu seeni kilifa di leen caxat caxatee seen ak ak seen yelleef saa su ne ci usine jën lañu doon liggéey bu ñuy wax ICAGEL nekkee ca diwaanu mbalin ca Mbour ak Thierno Daaf fay fekkee. ginnaaw bi ñu toogee lu mot fukki weer ak juróom fayeeku wuñu juróom-ñaar fukk ak juróomi liggéeykat yi nekk ci usine Ikagel mujje nañ leen dàq. le PDG d'Ikagel dafa xëy tey ne. yoonu Sénégal duma ko mos a topp. xëy jox lu mat juróom-ñaar fukki nit ak juróom-benn ay notification yi wane ne dàq naa leen te duma leen fay. mu démarré à partir de tey jii nii nii nii ci li nga xam ne procédure amu fa. alors ci loolu bu ñu xëyee ba léegi dañoo toog di ko xaar. waaye ñëwut yónniwut kenn ci. direction bi ñëwul teew si fii nii tey benn liggéeykat rek lañ ne jox leen seen notification parce que loolu lañ yelloo ñoom ñu dem ñibbi. ngir fësal taxawaay gi ñu am ngir dellu ci seen liggéey nag ñoom employé nee nañu mu neex mu naqari daañu indil seeni usine bi ay tolof tolof. bu ñuy dem ñibbi aussi du ñu yóbbaale dërëm mi ngi ràmmee ci ñag bi lay dem ci ñag boobu lay dem nag. je crois que ñu fay ko instant bi moo gën ñuy bàyyi ba affaire bi lakk ñuy doogan di nekk déet bàyyi leen lii wala bàyyi leen lële personnel bi nga xam ne moom la Christian Langlois dàq tey muy juróom-ñaar fukki nit ak juróom-benn takku nañ fasu nañ ñoom ñëpp que par force dinañ jot seen xaalis. bi ñu fase leenee lépp mën nañ ko ñoom liggéeykat yi donte dañ ci ñàkk seen bakkan du ñu mës a ànd ak dogal gi nga xamante ne seen direction moo ko jël. jógul nag ñun ñu joxe suñu bakkan pour jot suñu xaalis ndax xamaa lu jaar suñu kaw néew pour na sa resque ñun ñu mën a jot suñu xaalis suñu xaalis boobu bu jaaree ci suñu kaw néew na ko fay suñu njaboot décidé nañ te jël nañ décision boobu weer bii yëpp dinañ ci def ay activités yi nga xaman ne Christian bu ñu fayal suñu xaalis dina gis Ikagel usine la buy defar jën mu ngi nekk ci diiwaanu Mbaling ci yoonu Joal bi mu ngi ni féete tam ci pegg Mbuur Mbour Thierno Daf Walfadjri Euh, lu jëm ci ay doomi Sénégal lu tool ci ñaari junni ak ñaar téeméeri ñàkk nañu seen bakkan ci waaxu espagnol yi ba ñu jógee fii bëgg a dugg ca réew yooyee waaye tamit lu toll ci fukk ak juróom-benni junni doomi aadama di ay ndaw ñu nga tagatémbe ca il ya nekkee ca Espagne la ko war ak euh, ministre ba premier ministre bu Espagne sax ñëw na fii yàggul dara te lu ko indi bu ñu sukkandikoo euh, ci njiitu Horizon Sans Frontières moom Boubacar Seye nee na waxtaane ndongo yooyu tout tànk yooyu ndax dañ leen di delloo si waat ci réew moo ko fi fi indi waaye Sénégal bu mu xalaat delloo si leen dem yegg nañu foofa na leen ba ñu wéyal seenu tukki am lu ñu jàpp Pathé Mbeng moo tënk. ci diggante janvier ak novembre 2020 lu ëpp fukki junni ak juróom benn ci ay doomi aadama yoo xamee ne que dugg nañ ca réew mi Espagne ci anam yu teg wut ci yoon ak lu ëpp ñaar junni ci ay doomi aadama yoo xamee ne que jot nañoo ñàkk seen bakken loolee di ay kàddu yu tukkee ci Boubacar Seye di coordonnateur Horizon Sans Frontières. ñu dee en 2020 on parle de plus de euh, 2300 approxima approximativement 70 mais dama wax ni en termes de valeur absolue on ne peut pas quantifier le nombre de personnes yu dee c'est des approximations loolu moom dama bëgg mu leer kon vous conviendrez avec moi que benn doomu aadama rek bu ci perte fakkeem rek problème la waxtuma la on parle de plus de 2000 ci bi Entre 2014 et 2017, il y a eu plus de 15 326 exactement morts, dont les en Méditerranée centrale. L'idée ci at boobu ñetti at yooyu moo ëpp l'idée en 20 ans entre 1988 et 2009 il y a eu plus de morts en moyenne il y avait morts par année l'idée ci ñetti at yooyu moo ëpp l'idée en 20 ans donc vous voyez les problématiques que pose l'immigration clandestine aujourd'hui qui en découlent bu ñu sukkandikoo ba tey ci kàddu droit de l'homme bi di wuyoo si turu Boubacar Seye premier ministre espagnol bi am na yéene daal di defab tukkib nemmeeku fii ci Sénégal la ko waral nag moom mooy négocier naka la ñuy def ngir mën a waat yeneen ci ay doomi aadama yoo xamee ne que seen dugg ci biir Europe teguwul ci yoon. c'est parce qu'on attendait de de de Pedro Sanchez. parce que ñu ngi laam laamee c'est des rapatriements. duñ ci d'accord c'est notre position de principe. l'Europe a y c'est le conseil européen qui se réunit képp koo xam ni yaa ngi Europe amoo këyit dinañ la dellusi. loolu ñun la ñu wax ni d'accord uñu ko parce que rapatriement pour mu am il faut accord am te fu accord amee am na compensation financière parce que dañuy bañ li amoon 2005 ñu ñuy rapatrié woon yëpp ñu jëlaat gaal bi dem moo tax ñuy dugal xaalis bi ñuy dugal ci réew yi loolu moo tax ñëpp di laaj tey xaalis boobu fu mu dugg yooyu la ñuy bañ rapatriement yooyu ñuy wax. nous le condamnons avec la plus grande fermeté. président Horizon sans frontières Boubacar Seye ci face à bi mu doon amal ak taskatu xabaar yi jot naa xamal ne que ñii di réew tugal yi la ñu war a def moom mooy wut beneen pexe ci ñooñee di dugg ci seeni réew bu dul delloo ci leen ci réew ya ñu jóge Euh, kooku ñu doon teew di Pathé Mbeng kon euh, njiitu fële ñuy wax Espagne seen premier ministre ba dafay waajal tukki nemmeeku fii ci Sénégal ñu dañuy waxtaanee euh, doomi Sénégal ya taggatémbe seenum réew ndax dañ leen di delloo seen det ñu wax ci wàllu napp gi fii ci Ndakaaru ñu bari nag jot a yëkkat seen i kàddu rawatina yi ni ñu ngi ay jafe-jafe mënatuñoo dugg am dara nañu duggee lañ ñuy génnee ak seen i caas yu àndoon ak dara li ko waral nag mooy bato yu jóge bitim réew bari lool ci waaxu Sénégal yi nguur gi na ci jël ay matuwaay Ndiaye Ndiakhate Mbaye moo leen fekk ca fa ñuy toog. jaaykat yi ci marché Soumbédioune ñu ngi wéy di fësal seenuk mer ñoom ñiy yëngu ci jaayum jën di ñu xamal ne njeexitalu couvre-feu bi sax taxul marché neex. couvre bi jeex na dund nañ ko ak métit macha allah métti woon na lool mais nag yàlla moo ko indi te yàlla xëy na leneen ko fi jëlewaat te yàlla na ko fi yàlla jëlee sax mais ñun fi mu nekk li ñu jooy mooy ñun ñooy jabaru mool yi ñooy yaayu mool yi gisuñu lu ñu jaay gisuñu lu ñu liggéey ndax suñu doom yi dañuy yaakaar ñu dem ci géej gi di ñëw. te bu ñu demee du ñu andi dara. ndaw sii di ab jaaykat di ñu xamal ni ñàkkub jën bi lenn waralu ko lu dul bato yeneen réew yi nekk ci suñu ndox yi. affaire bato yi bato yi moo tax gis nga fi mu toll nii géej gi amatul dara suñu càmmiñ ñi sonn nañ dañuy dem géej ba ñëw du ñu indi dara seen frais yi sax du génn xam nga loolu metti na. ñuy ñaan rek ñu dimbali ñu ci bato yi. teewul ñu ngi ñaan ndimbal ci nguur gi. état bi na fi chinois yi jógee ñu bàyyi ñu suñu géej. ñu mën fee liggéey parce que ñun amuñu duñu bureaucrate lii la ñu xam ñun lii la ñu xam lii la ñuy liggéey géej gi amatul jën ñu wàññi gasoil bi jële fi chinois bateau chinois yi mool yi mën a ñëw napp jën yu baax ñu ko daan liggéey fi nekk nii jën bu baax amatul ci géej. ñàkkum jën bi bëri na ay gàllankoor loolu ci jaaykat yi nekk ca marché Soumbédioune bu ñenn ñi di joxañ baaraamatuma tuuma tubaab yi nekk ci géej gi ñeneen ñi jàpp ni loolu kenn waralu ko ku dul nguur gi.